yéenay wax dootuma sàmmi mbaam sama gëléem gitu. màgg na defe naa loolu am na dama ne Macky Sall man de duma APR ya? waaye APR yi gën a ñu bëggoo bëgg ndax yaram tegginam bëgg Sénégalam mën liggéeyam te boolewul daraax wax du wax wax bu ñaaw du jëf-jëf bu ñaaw man nag man sama walu bopp dama jàpp ne man rek la fonk ndax fu ma gis sama loxo ne ma ay dana nga def accolade loolu ku ko président defal dalay jaral lu ne mu bëgg nag sama parti ndax yéen ñëpp xam ngeen fa mu tegoon Tanor Tanor jóge fi munoon ne kon jeex na waaye mu jël Aminata Mbengue teg ci place su Tanor ba tax ñun ñëpp bu ñu muy defar liste bi def ma troisième position kon dama ne ñun kuy jàppale Macky Macky rek fekk nga ñu ci dañu ne tey jii ku voté liste bii voté woo Néné Tall voté woo Aïda wote woo Béji wote woo kenn Macky Sall la wote ndaxte kat il faut ngeen xam lan mooy rôle député député bu wote wul loi président du mën a joxe njëgu ceeb député bu wote président du joxe njëgu essence député bu wote wul loi président du fay salaire député bu wote wul loi président du def dara dara dara dara loi yi mooy tax président bi liggéey waa kooku bu demee assemblée. amu fa majorité bu mun a voté loi yooyu koy permettre muy liggéey fu mu jëm dama ne bu amoon majorité xam ngeen lan lay doon président rek am yore ministre des affaires étrangères ak défense am la kenn yëpp opposition moo koy yore lu ñu indi lu ma indi président lu ma indi assemblée bu leen neexulee ñu ne du fi am bu boobaa liggéeyam day dal di jafe bennoo la la fi nekkoon accident la ña taxoon mu am gimmi nañu xam nañ ne loolu ñu def baaxul dellu seen ginnaaw maa ngi leen di kontaan ci yéen di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla fi ngeen bëgg a yegg yal na ngeen fa yegg ndax ñun kat suñuy wàllu wey ne yéen la ñuy kon boo leen amee prise de conscience ñëw xam ne Macky moom la ñu war a jox majorité à kon dañu ci kontaan kenn ku ne nag commune nga ne fexe bi joxe ak ñoom ñëpp ngeen bokk day bokk bàyyi liggéey loolu mooy liggéey bi ndax ñaari liste a ñetti liste am benn liste ma am muy liste Benno Bokk Yaakaar kon nag ñëpp nañu rangé dugg ci liste yi seen euh, seen coalition bi ngeen def nag maa ngi leen di ñaanal yàlla na jën kanam ndax lii kat moom wax dëgg yàlla te ñëpp bokk ñu APR ñëpp bokk ñu benn ma ngeen xëcc leen di ñëw yéen gàtt gaalaama jaaxal na